su ko defee rek Amadou ñu daal di ci ànd ak euh, xarxanam bu njëkk mooy di stade njëkk mu mel xëy bind ay euh, xët yu am solo ci biir rek xarkanamam gi euh, nit ki niñ koy defee nag saa bu nu xëyee dañ xët yooyu wala ñaar wala ñett daal di koy jël baaxe ko rawatina Good Morning Africa Amadou xët wu njëkk euh, ci biir euh, fi nga xam ne moo di standard bokk na ci rek ab audit report boo xam ne daal dina dikk nag ci li nga xam ne mooy euh, moomeelu ci réew di Yaxya report nag muy li nga xam ne rek moom la euh, ñu génne muy ñu lu ñu tu li nga xam ne rek moo di euh, sàqub réew mi euh, lu ñu xam ne nag ne ci alal yu ñu jaay wala ci moomelu Yaya yu ñu jaay am na ci lu ëpp ñaari ñaar fukki million ak ñaar yoo xam ne yooyu nekkul lu ñu rek daal di compter wala nekkul loo xam ne boole nañ ko rek ci lu ñu fësal ne loolu lañ jaay loolu rek la daal di xam ne nee lu ëpp daal ñaar fukki million ak ñaar kenn xamul daal fan la xaalis boobu rek dugg ndax nag wane wuñ ko wala binduñu ko ci rek ñu bo ci yu ñu rek daal di euh, fësal ne yooyu lañu ñu a jaay ci loolu nag li ñu xamle nag ci biir bo yëree li nga xam ne rek moo di yëglikaay bi di standard daal dina xamle ne am na yenn yoo xam ne wala am na njuuj njaaj yuñ ci rek njortu ne am na euh, ci njaay mi nga xam ne jaay nañ ko ci euh, am li ki nga xam ne rek moo fi nekkoon njiit réew di yaaya Jammeh ñu wax ci leneen Amadou ba tey jii des ci xëtu yëglekaay bii di standard moom nag mi ngi daal di xamle euh, ki nga xam ne rek jàpp nañu ko di rek Mr Sané ñu gën koo xam ne nag ci euh, Baytula moom nag ñu ngi ko teg loxo euh, foofee ca Sigicoor ñu ko jàpp nag mooy ñi nga xam ne rek ñoo di. Euh, soldaaru euh, wala takk deru euh, Sénégal ñoo ko rek daal di teg loxo ki nga xam ne nag moo di jàmbur bu fooñi kansalal di almaami jiba nag moom mi ngi sàkku ci nguur wala kilifay Sénégal yi ñu daal di koy bàyyi ci nu mu gën a gaawee wala ñu yóbbu ko ci yoon waaye nag waruñu ko jàpp rek téye noonu te xamuñ ko jàppee li mu teg nag ci biir wax ji moom ki nga xam ne mooy almaami jiba moom nag di jàmbur bu fooñi kansala nee na lan moo tax ñu jàpp ko loolu yi war des na koo xam ba tamit dañ njëkkoon a siiwal ne jàpp gi si Ziguinchor lañ ko jàppee te foofu lañ ko téyee ñu waxlaat leen ne mi ngi Dakar nee na ñaar yooyu lënt na ñi nga xam ne ñooy njabootu moom mi di rek baytulaa ndax loolu euh, ump na leen xamuñu euh, fan la ñu nekk beneen bi tamit nag ñuy euh, ñaax nguurug réew mi ngir ñu déem a xool ni ñu lëkkaloo ak nguurug réewum Sénégal ngir ñu fexe ba daal di bàyyi ki nga xam ne rek moo di moom moomee di baytulaa ñu teg loxo wala ñu yóbbu ko ci yoon maanaam rek ci attekaay ñu atte ko ngir rek xam las lañ koy toppee bu dul loolu nag ñoom jàpp gi dañ koy jàppee ni dañ ko rek daal loolu yi la rek daal di fësal ne nag ci nu mu gën a gaawee nañ ko rek daal di bàyyi wala ñu yóbbu ko fi nga xam ne rek moo di uh, fu mbaxana doone benn uh, ci noonu nag moom almaami uh, jiba yemul foofu mu ngi daal di jox xar bi baaraamu tuuma ki nga xam ne rek moo di IGP nee na nag ba nga xam ne rek ñoo di fóoñ yi am ñenn ci ñi nga xam ne mooy boyaam foofu waxoon ne dañuy rek génn ngir rek doogaanu ñaxtu ci jàpp gi jàpp kookii di baytula moom di IGP yónnee woon na fa gaaw xaat ay li nga xam ne rek mooy ay takk der ngir rek ñu daal di gàntal boobule ñaxtu moom nag muy daal di xam ne ne Euh, li nga xam ne mooy ber ak bedd bedd gi nga xam ne ñu ngi koy bedd nag euh, foofee di waa Fogni loolu yi nag lu ñu war a bàyyi la euh, lu ñu war a rek daal di seetal la ndax nag Fogni dafa bokk nag ci réewum Gàmbi te rek am nañu li nga xam ne rek moo di right ngir rek mën a dox dogaanu ñoxtu saa bu ñu ko daal di bëggee waaye li mu tëjee kàddoom nag mooy mi ngi ñaax nag ñi nga xam ne ñoo di sénégalais autrice yi muy kilifay réewum Sénégal ngir rek ñu fexe nu ñu ko rek daal di génne wala nu ñu ko daal di bàyyee ci rek nu mu gën a gaawee Amadou am ñu daal di wax ci leneen bu ñu jógee sax ci loolu te ci euh, police yi ginnaaw après que benn. kuréel goo xam ne day saytu euh, ci réew mi euh, muy rek afrobaromètre moom nag ab report bu mu génnee maanaam téere tënk na ci nag di xamle nag réewum euh, Gambie seen rek takk der yi ci wàllu li nga xam ne rek moo di liggéey bu jaar yoon maanaam rek professionnalisme dañ ci rek daal di des ginnaaw ci rek li nga xam ne report bi génne na ko nee na bu mu taataanee li nga xam ne rek moo di gis-gisu askan wi ci police yi ñaar fukk téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoom dañ dañ nangu nañ ne police seen liggéey dañ ci wane li nga xam ne rek moo di lii di professionnalisme waaye nag boo jëlee téeméer téeméer boo jël ñeent fukk ak juróomi maanaam 45 pour cent ci réew mi ñoom lu ñu xamle nag mooy euh, police seen liggéey àndut ak benn professionnalisme te nag ñu ci bari euh, li nga xam ne rek moo di euh, di rek arrêté li duy jaar yoon du ñuy am benn firnde bu tegu ngir rek ñu mën a arrêté oto nee nag lu ci ëpp daal ci askan wi boo jëlee daal téeméer boo jël ñeent fukk ak juróomi nee ñu police seen liggéey àndut ak li nga xam ne mooy euh, professionnalisme waaye nag daal dinañ ci euh, indi lu am solo ci biir xët bi nga xam ne rek moo di standard euh, ku ci rek gën a bëgg a yaatal da nga yër li nga xam ne mooy yëglekaay bi di standard ñu tëj ko moom sax daal di ubbi di voice Amadou mi ngi noonu ñu ngi am fii di voice tey moom it nag xëy na bind lu am solo ni ki ni ko standard defee su ko defee rek ñu daal di li nga xam ne mooy di voice indi li nga xam ne rek mooy xët wu njëkk wu njëkk rek ànd ngir digtal ko askan wi bokk na ci ki nga xam ne rek mooy tombang Seydi bokk ci ñi nga xam ne ñoo yor euh, communication wàllum li nga xam ne rek moo di xarala yi maanaam jumtukaay yi moo xam Facebook la moo xam YouTube la ci langub UDP gi moom nag daal dina indi li nga xam ne mooy ay jàngatam euh, mel ni sax kuy criticise li nga xam ne mooy njiitu réew mi Adama Barrow ci rek li nga xam ne mooy kaddu yi mu yëkkati woon euh, ca ngombalaan ga muy rek state of the daal dina xam ne nag ñu bari dañ am li nga xam ne mooy mbetteel ci njiitu réew mi ndax nag lépp kaddu yi mu yëkkati foofu bokkut ak lu askan wi doon xaar ci moom ndax askan waa ngi ko doon xaar ci mu wax ci dundu gu seer askan waa ngi doon xaar mu wax ci jafe yi ak li nga xam ne mooy gàllankoor waaye nag nee ay lay la fa indi ak neneen mu ko layee waaye indiwut fa dara loo xam ne ni dina dalal xelu askan wi ci nan lay xeexee li nga xam ne rek mooy yooyu jafe-jafe moom nag noonu la daal di rek gisee ne ki nga xam ne mooy Adama Barrow daal dafa daal di bett askan wi ci li nga xam ne mooy kàddu yu mu yëkkati ci ba muy janook jàmbur yi ca ngombalaan ga ñu wax ci leneen Amadou bu ñu jógee foofe wax ci ki nga xam ne mooy jëwriñ di ñu dénk wàllu li nga xam ne rek mooy information muy rek Lamine Kuwin Jammeh moom nag daal dina xamle wala sax ci jano bi nga xam ne ñu ngi ko doon séq muy ab waxtaan boo xam ne euh, moom ak taskatu xibaar yi ak media chiefs ñoom ñoo fa nekkoon doon ko rek daal di amal euh, profito na si wala posé wu na ci daal di nag xam le ne euh, tas tasum xibaar lu am solo la tey nag ponk la bu am solo ci réew ndax bokk na ci ponk yu doxal démocratie ci réew waaye nag mu ngi ñaax taskatu xibaar yi ñu gën a xool ni ñuy joxe seen xibaar yi muy doon xibaar yu tegu ci yoon muy doon xibaar yoo xam ne day ànd ak professionnalisme doon xibaar yoo xam ne du am benn xibaar bu yee fitna wala xibaar boo xam ne day doon xibaar yoo xam ne du doon wér loolu daal ne leen ko ñaaxee ndax nag nee na euh, li nga xam ne mooy tasum xibaar dafa am doole taskatu xibaar ci boppam dafa am doole ci réew kon nag nañu saytu ni ñu liggéey bu baax a baax baña a bokk ci ñuy yee fitna waaye bokk ci ñuy nga xam ne ñooy yee askan wi di leen jox xibaar yoo xam ne day wér euh, te wóor Amadou Amadou mi ngoog lii la kër ëttu kër yëglekaay yi xëyee tey su ko defee ñu daal di tëj yëglekaay yi